Voilà, assalamu alaikum. Assalamu alaikum tout le monde. Voilà, on est toujours, euh, toujours North Carolina. Voilà, donc on a fait Charlotte, légui lañu joggé Greensboro, ñu ngi dem euh, Raleigh. Durham lañuy jaar euh, après ñu mujjé Raleigh. je voulais seulement faire une petite vidéo en polar et en français aussi pour nos frères guinéens. plus particulièrement Païkoun Saré. On a vu que Païkoun Saré a été recruté par Amadou Ba, Amadou Djouldeba, le détourneur des deniers publics au, au Sénégal, le candidat présidentiel, qui a décidé de dire aux Guinéens, légal ou pas, qu'ils n'ont qu'à obtenir des cartes d'identité sénégalaises illégalement obtenues pour aller voter pour Amadouba. Je vous dis une chose. Si vous, y avez, si bons conseils, que aucun Guinéen ne se mêle dans la politique sénégalaise. La politique sénégalaise ne concerne que les Sénégalais. Si toutefois un Guinéen se mêle dans la politique sénégalaise, les conséquences, c'est à toi de récolter. C'est bien clair. Tout ce que je dis, marquez-le et prenez-le clair. Vous serez photographié, vous serez traqué, vous serez attaqué par la jeunesse sénégalaise. Et si vous avez oublié les événements de la Mauritanie et du Sénégal, ce n'était pas très longtemps. Ce n'était pas très longtemps. Si vous allez dans les archives, vous allez voir que les événements sénégalo-mauritaniens n'étaient pas très longtemps. Et vous voyez les problèmes que ça a créé. Les Guinéens, c'est nos frères, c'est nos voisins. Les Sénégalais ne se mêlent pas dans la politique guinéenne. Et on dit très bien et très clair que Païkoun Saré est en train de brûler, de vous mettre dans la merde. N'acceptez pas ses conseils et ne suivez pas ses conseils. Parce que toute fois que vous le faisiez, les conséquences seront à vous de récolter. On est prêt pour cette fois-ci, pour libérer notre pays. Et on le fera à tout prix. Sachez cela. Si toutefois on attrape un Guinéen qu'on ne reconnaît pas, sa vie sera en danger. Et on vous savoir, c'est clair et net. Païkou Saré, un délinquant connu qui a pris l'argent de Amadouba, et qui a décidé qu'il va dire aux Guinéens d'aller voter pour Amadouba légal ou pas. Et on sait comment beaucoup parmi vous ont obtenu vos documents et vos cartes Je vais vous dire de ne pas le faire. Il faut reculer, rester chez vous et mêlez-vous dans les affaires guinéennes. Voici Païkou Saré. Il est très bien traqué et on le connaît. Et vous le connaissez très bien. Tous les Guinéens le connaissent. C'est un danger public yomi yomi wawlu ɗum kadi e saare amadou no yoɓi mo mbuuɗi meɗen anndi fof amadou no yoɓi pay saare fii o yahu o wowlana guinéyenɓe ɓen hennde ɗon kayit illégalement yalton woota noon amadou ba miɗo wiya kala guinéen jo ko on sehilaji sehilaɓe amen ko on ko minen jooɗi ɗi min falaka hakkunde amen événement maritani sénégal woɗɗagoy acce hakkille ruttoɗon daroyon oɗon jogui bitiguije mon oɗon yeeya piiji mon oɗon waɗa golleji mon waɗe golle mon yalte e piiji politique sénégal wona haaju mon acce sénégalais e politique sénégalais ɓay politique si woni guine minen haaju amen ala e politique guine min acca guine yemɓe ɓe décida ko wonata e saare mum sénégalais ɓen kadi noon on accay on tenkinayi men min décida piiji amen kumpay kun saare ɗo ƴettuɗe mbuuɗi amadou ba no bonna hakkunde sénégalais ɓe guine yemɓe kala ko aaden naati e mum kala probléme ko henndiɗa e mum annda ko an tum waɗi ɗum hoorema on jarama allah jarama joɗoɗen e galleji mon tënk nom politique sénégalais tranquillement voilà donc gars yi euh, defe naa li ñu doon leeral leeral nañ ko ci ñii nga xam ne ñoo ko bëgg a dégg bu leen may benn guinéen xàmmee leen ñëpp guinéen muy gan boo xam ne yéen xam ngeen ko xàmmeewu leen ko bépp guinéen boo leen ràññee ci politique paykun saare dugal ko ci tappale jëflante leen ak moom dànkaafu naa leen ci seen lakk dànkaafu naa leen ci français te dégg nañ ko donc ñun bokkuñu ci ay manipulation voilà bëgguñu benn Sénégal benn Guinéen ak faux papier di génn di ne moom day dem vote ji ku ko def di nga sa bakkan mi ngi ci xottu gerte bàyyi loolu si xel voilà lii laa amoon lu ma wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp boo amee loo ci teg Malick bismillah voilà li may wax musuñoo mêlé ci benn élection guinéen que les Guinéens s'abstiennent de nos seen yoon nekkul sunu élection parce que xam nañ ñu ci bari nañu amee seeni kayit Amadou Ba le corrupteur jàpp ay nit ay Guinéens yoo xamante ne si ñoo ngi ñëw ñu ñëw utal leen ay kayit pour que ñu ñëw buure suñuy urne rien que pour Amadou Ba lu leer naññ laa leen di wax ci dëkk bi ñun ñëpp xamante nañu bépp guinéen boo xamante ne da nga ñëw ñëw taxaw daal ne da ngay dugg ci biir dëkk bi ñëw ne da ngay xam xàmmee nañ leen yéen ñëpp na leen leer ne seen bakken mi ngi ci xottu gerte parce que élection bi ñun suñu bakken lañ ju teg na leen leer les gens les sénégalais yéen laay waxal voter les patriotes particulièrement voter faire voter sécuriser le vote nañu voter votelu mais aussi nañu taxaw xool xàmmee nañ ñi dëkk ci biir koñ bi ñëpp ñoo xam dañu war a voter képp koo xam bokk fa nañ ko jël ñu digaale ko ak moom asalaamaaleykum. voilà fii la ñu yem ci wax ji video bi jël leen ko sama gars yi ngeen tas ko mu yegg fépp suñu mbokk Guinée yi jot ci ndax li may wax wax naa ko ci pël dégg nañ ko ñi déggul pël dégg nañu français dégg nañu li ma wax waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.